aussi ñi ngi def liggéey bu amam solo ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen euh, bëggee correspondant yi ñooñ kenn amul seen fay ndax mm-hmm. liggéey yu am solo lañ nekk def ci région yi nga xamante ni moo nekk fii ci Sénégal macha allah ñu ngi leen di delloo njëkkal bu baax a baax di leen ziar donc mu mel ni euh, li ñu fi desee bokk na seen rubrique bi lee di euh, li woon démb li woon dem na tey dafa fa seen def suite ak thème bi ñu doon waxtaanee la fois passée mu ñeel fukki jikko yu fi jugee ak fukki jikko yu fi di fi juux <laughs> mi ngi noonu donc Mbaye ma baal ñu daal di koy faram fàcce. jërëjëf aw yombe di ci profité di nuyu Touba Walf bu Géejawaay. waaw moom ndeysaan euh, daa sopp Walfadjri lool ba tuddee boppam Touba Walf. ndeysaan Géejawaay. Touba Walf Géejawaay sama xarit boobu maa ngi koy Walfadjri également di Tata Fane Ndiaye Fane Ndiaye Sarr di yaayu Cheikh Sarr. nekkoon ancien euh, Fane mhm. Ndiaye Sarr nekk ancien entraîneur au Lion du basket. d'accord ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu vraiment maman Amina Bodian ñoom ñëpp ñu leen di nuyu. fans club Walfadjri ñu leen di nuyu ñoom ñëpp. macha allah ñu koy béggee surtout ay Aïssatou Silla bu mhm. moom macha allah moom tamit. ak daa bëgg Walfadjri. Euh, tuwaar fakal la ñu leen di bégg wallaay ndeysaan ak soppe Walfadjri yëpp. ñu leen di béggee. Mhm. awa ñu ngi woon ci euh, fukki fi jóg ak yi fi mm-hmm. joox mm-hmm. gis euh, alxames jee ñu génn ñu nekkoon ci njëlbeen gi muy barke mm-hmm. ku ne xam na ni àddina fi mu toll lu bare bare bare bari barke bi deñ na ñàkk barke ñëw taxaw ñoo am yoon ci jotoon a euh, wax bokk na ci euh, ku ne xam na ne yére ak col barke ba mu amoon mu ngi wàññeeku amatu ko léegi ku nekk da dem ci sa boo gisee sa kër da ngay am armoire six battant mm-hmm. mu fees dell ak yére mm-hmm. waaye boo génnee ci mbedd mi gis ne lu baree baree bari bari ci nit ñi dañuy rafle mm-hmm. rawatina euh, jigéen ñi ñi nga xam ne ñoo gën a féete ndaw ndeysaan boo génnee ci mbedd mi rek dajeeg jigéen joo xam ne day solu ba tubar la waaye lam sol lépp bu bu ko summi nga mën ko def ci sa poos ndeysaan dëgg ndeysaan <laughs> ndeysaan moo tax ci sama benn la taalif bu ma bindoon ci sër ma naan sër yàlla na ko yàlla yërëm. <laughs> sër ñàkk na valeur ndeysaan waaw. <laughs> Euh, da gis la mu sol lépp ko summi mën nga koo def ci sa poos. te moom moom kat boo demee. Mhm. am na armoire si batan ba mu fees ak yére. wala téléphone bu cher sax téléphone. un million yi deux millions te amuloo añee. dana waada gis nga kon yére day bari. Mhm. waaye barke ba deñ na moo tax yére day bari nga rafle am. Mhm. nga gis barke bi nekkoon tamit ci xam-xam mm-hmm. ndeysaan xam-xam euh, barke bi wàññeeku na mag ñi bu njëkk danga nga daan gis ngir nga jàng benn téere mm-hmm. dangay laxas dem dëkk ak dëkk lu ne nga def daj ko ngir jàng benn téere ku ne gis na léegi ni téere yi bare euh, bibliothèque yi bari mm-hmm. lépp bari te gars yi tey la jàng yomb lool doon ne boo toogee sa kër sax mën ngaa jàng waaye gis nga barke bi ci nekkoon mhm. rocceeku googu mu tàmbalee rocceeku moo tax xam-xam xam-xam danaan maanaam possibilité day bari xam-xam bari waaye jëfe gi néew lool lool ndeysaan moo tax yooyu yëpp nga gis ne barke bi nga xamante ni moo ci tàmbalee génn mhm. moom moo indi loolu kon barke day day day day dem ak ñàkk barke wutu ko ci anam ak ay fan ak mbir yu baree baree baree euh, bari bi ko ñaareel mooy cofeel waaw cofeel dafay dem ndeysaan ngistal wutu ko ak ñàkk dëggu euh, aw yombe bari na ku lay ku lay ree dëgg la ku mm-hmm. lam la ëmbal ci ab xolam mm-hmm. boo ko gisoon boo dajeek moom daw wallaahi waaw tax cofeel dafay dem ñu bari ndeysaan dañ ree waaye soppuñu la ci lu wér sax ak bëri ñu bari yenn saa yi nga dajeg nit mu jël la taf la ci dënnam mm-hmm. fekk ma ngi lay ngóobi ca ginnaaw sa gàcc lay mm-hmm. xaar waaw waaw ma maanaam est-ce que gisoo ni loolu moo tax léegi nit ñi dañoo dem ba ñu baal ma ci kàdd bi nekk ay hypocrite parce que dañ naan il faut jouer le jeu ku la bëggul maanaam même bu taxee ree la faaw nga ree ko lu mu indi indi lool léegi ñi dañoo dem ba mujjee hypocrite parce que loolu la ñu loolu la ñu indi loolu la ñu indi léegi obligé de jouer le boobu lañ toll loolu lañ lay wax aussi loolu lañ lay gëmloo sax nag mm-hmm. mbay dañ naan il faut jouer le mm-hmm. xam nga nit ku bëgg la mais boo ñëwee li mu la ko indi rek sukk du la tere yóbbu say oom <laughs> ndeysaan mm. ndeysaan waaw xam nga foofu tamit dafa am luñ fa luñ fay jaawale mm-hmm. muy muy masla d'accord masla euh, dafa nekk loo xamante ni as gor da koy def. dëgg la. waaw ah, gor su gore. faw mu maslaa. ndax as gor bu xasee ba gore dafay am lu ko tënk. li koy tënk moo di ngoram. mën ngaa gis kii xam ne kii kat bëggu la. wala sam noonu la. waaye du tee ngay maslaa ak moom. waaye maslaa boobu ngay maslaa ak moom. dafa am lu bari lu muy jur mm-hmm. looloo tax as di maslaa mm-hmm. euh, dama mës a def benn émission ma ne ma ma ciy waxtaan juróom-ñett yi nga xam ne mm-hmm. moom la as di melawoo ba ma egsi ci as day maslaa ak ku ko jikkoom neexul xam nga ku la sa jikkoon ku koo xam ne jikkoom neexu la ak koo xam ne dalaa bañ du du benn kii dafa am jikko joo xam ne gis nga jikkoom ji waaye jikko ji neexu la mhm. Mhm. waaye yow mënoo koo def ab noon mënoo koo bàyyi mënoo koo beddi mënoo koo noonu mhm. ndax da mën nga am doom jikkoom du la neex dëgg la mën ngaa am jabar wala jëkkër soxna jikkoom du la neex dëgg la ci lu ngaa am yaay ju la jur yaay ju la jur wala baay bi la jur te jikkoom du la neex sax waaye boo doonee as gor su gore faw ngay maslaa ak moom mhm. ndax as gor day maslaa ak ku ko jikkoom neexul mhm. mm-hmm. génn góor woo ma téléphone ne ma juróom ñaar yëpp am naa ko benn ma manqué woon mm-hmm. muy boobu mënuma masla ak ku ma jikkoom neexu mm-hmm. waaye giñ naa ci yàlla bis ni tey dinaa ko def macha allah ah. moo tax as gor day masla ak ku ko jikkoom neexul ki la bëgg nag wala ki lay ree ak ki noonu ci biir xolam. ba pare di la ree dafa neexut a xàmmee. Mhm. moo tax waykat ba wax ko ki bëgg ak ki lay ree neexut a xàmmee. Mhm. ndeysaan neexut a xàmmee. Mhm. waaw moo tax euh, cofeel day dem. nit di la ree te doo xam ndax sopp na lam déet fekk la lay naqari ëllëg soo moytuwul rek ndeysaan ci moom lay jóge waaw maandu dafay dem maandu ndeysaan euh, ñu bare bare bare bari maandu te googu dootu fi amati euh, xam nga maandu ñàkk maandu googu jur na lu bare bare bari ci jamono ndeysaan sosal as gor soo xamante ni li nga koy waxal xamoo ci dara mm-hmm. xamoo ko xamoo fu mu juddoo mm-hmm. xamoo fu mu yaroo xamoo nuñ ko yare xamoo ci moom dara xëy na da nga gis sax mu def mbaa mu wax loo xam ne dalaa nuru naka su dul noonu wax la ci moom sax wala nit nga gëm lool ba mere ko ci lool donte yow da fekkee waaw ñàkk mandu day tax lu ne rek nga wax ko ko yàq ko lu ne mais mbay foofu foofu doo gis ne comme li ma doon wax mm-hmm. di feek bi ñu doon wax nii mm-hmm. ñàkk a maandu yooyu noonu détails yi yëpp lu tax mu bari maanaam nit di lijjanti li mu warta lijjanti est-ce que nekkul occupation moo amul am jot daal parce que man fii rek laa ko gis boo génnee mm-hmm. boo génnee Sénégal mm-hmm. xam nga walk to walk maanaam kenn amul jotu kenn mm-hmm. tout le temps yaa ngi ci sa bopp est-ce que gisoo ne loolu aussi buñ ko jéemoon a adapté <laughs> du ah, wàññi affaire yi ñoom danoo mandu ñoom danoo mandu ñooñu dañu maandu Sénégal mais am jot bi aussi waaw am na si solo de boo amul jot yéen ñi doo ko tal mais am boo amee jot da ngay am tal da ngay tal léegi léegi ki ki màndu mm-hmm. du am jot mm-hmm. ki màndu mm-hmm. du am jot déedéet ndax boppam da koy doy voilà koy doy sëkk gotta please yourself ok waaw ki ki ki màndu dul am jot ndax boppam da koy doy ku dañ moytul di bëri jot ndax ku bëri jot ñëpp lay jot te doo jote moo tax soo maandoo doo am ak jot. ndax sa bopp dalay doy. ndax yow li la li la war. Mm-hmm. ak li nga li nga war lool sa bopp. Mm-hmm. maanaam daanaka doo am ak jotam yow. waaw léegi kon maandute googu ngay maandoo ba nga xamante ni dangay tal sa bopp. Mm-hmm. ci bépp fànn. Ah. mooy waral doo am jotu keneen bay lijjanti leneen. maandoo lay yóbbu ci loolu. léegi gorede bi nag. boo goree dee. boo goree dee doo mën a màndu. voilà. ku goree di ku goree di du mën a màndu. ndax as gor. du du du di wor. waaw dafa bokk ci juróom-ñett yi gor di melawoo. mooy as gor du wét di wor. léegi tey ñàkk ngor gisoo ne ah, mooy ñàkk am liggéey quoi. déedéet maanaam tey ngay ngay ngay tout le tout uh-huh. xam nga. nga nga nga mesuré wu ci loolu di dundee loolu en fait. doylu quoi donc gisoo affaire yi dafa dafa dafa dafa incrusté wu. waaw yu bari dana dañu duggante mbaax gépp mbaax gépp mbaax dañoo duggante ndax doylu googu doylu moom nga bëgg a wax doylu. waaw mooy li ma am. Mm-hmm. cent franc yi ma am mm-hmm. doy na ma sëkk ndax su la doy su la doyee. Mm-hmm. maanaam mbégte mi ngay yëg. Mhm. ak dal ak mhm. bànneex bi ngay yëg ci sa biir xol. Mhm. dafay nduroo ak ki yor milliard tamit. mbégte mi muy yëg ak bànneex bi muy yëg ci biir xolam. lii ma la wax nii. man waxuma ko. waaw bi moo ko wax. waaw moo ne alxinaa kanzun laa yanfaa. doylu. mooy koom-koom bi dul jeex. doylu soo doyloo dafay mel ni da yor ay milliards. moo tax ñàkk du la impacté mhm. du impacté sa dund waaw loo loo loo amul mhm. loo amul du la du impacté impacte ci sa dund ku la gis da ngay bég da ngay xàppi doo soxor doo am temps kenn mhm. doo doo soxor lu nit am da ko koy yéene nit day am dara nga bég ci doo yéene kenn lu bon doo yéene kenn lu ñaaw su nit amee yow li nga am sax da ngay bëgg sax jël ko dooleel ko ko. Mhm. waaw mbégte moom ngay dund joie de vivre boobu ngay am. Mhm. paix intérieure la lay jox. Mhm. maanaam jàmmi biir. jàmmi biir jooju ngay am nag mooy reflété wu ci sa kanam. di reflété wu ci say jëf di reflété ci say wax. ak sa jëflante ak nit ñi. moo tax doylu dafa dafa dafa yéeme. moo tax yonent bi ne mooy koom-koom. bi dul jeex. du jeex. mais euh, foofu li ma fa bëggoon a yokk rek mooy benn affaire mooy tout euh, kàngam li mu doon wax. Mhm. mais euh, ndax ñi nga xamante ne dañuy toog di wax ci nit et autres. ndax mhm. peut-être am jot la ñàkk liggéey la en fait. je ne mhm. nit ñaa hmm. ngi ci entreprise yi. Hmm. terewul ñu ngi ñu ngi wax li ñuy wax te pourtant ñu ngi xëy di liggéey. Hmm. ñu ngi ñu ngi ñu buñ ko buñ ko waxeewul foofu ñu ngi koy waxee ci Facebook bi. buñ ko waxeewul foofu ñu ngi wax ci groupe WhatsApp yi. donc juste pour dire que man xamalaa la je me dis que ni euh, ku nekk sa jikko la rek. jikko la jikko borom nga yóbbaale jikko la rek sang sang du tax mu set voilà jikko la rek gis nga tey jii nii boo sañee toog naan ne yàlla na ma yàlla fay sama xol du ñëpp ko sañ yàlla na ma yàlla fay euh, sama xol. kon musiba am du ñëpp a ko sañ. dëgg musiba am. Mm-hmm. moo tax tey jii kuñ ne yàlla na la yàlla fay sa xol. Mm-hmm. <laughs> ak ak a yéeme ak a yéeme parce que des fois comme kii li muy wax danga naan euh, nu mu tuddati ñi lay reetaan xamoo leen. xamoo leen. tout ça euh, mais Babacar li mu wax dëgg la sëñ Babacar li mu wax dëgg la parce am na ñoo xamante ne dafa mel ni mhm. ñoom rek ñoo war a avancer mais kenn warul avancer man damay toog ba si yàgg ma ne di dem ci mu jaral la nga dem ci sëriñ di yàq doomu jàmbur mm. pour lan soxor boobu la ñàkk doylu rek soxor pour lan la man nit ñi damay xool ba si yàgg ma ne est-ce que nit ñi xam nañ ne ëllëg dañuy leloo euh, laloo seen ndeyjoor bi tënk. ndeysaan mhm. ndeysaan xamuñu ko. ñàkk la parce que. Euh, yow nga ne kii dina avancé wala nga jël nit ki di ko yàq ni non non poste bi mu yor mérité wu ko. Mhm. dama ko fiy génne. poste bi mu yor dama koy pétissé gé pétition lay def mu jóge fi ah, kii war ñu ko jox poste bi. poste bi man maa ko mérité wala sama doom. mais yàlla. ana yàlla tamit du jalousie parce que des fois yaay gis yaay gis sa fi toog benn poste nga ne dafa lijjanti ba am ko donte xam nga ne expertise am ak xam-xamam moo ko fa yóbbee mais mm, mm. dinañ la sosal ne non dafa lijjanti li wala dafa xam directeur wala dafa jege directeur bi moo tax mu am ko te donte des fois sax xam-xam moo lay bàyyi fi nga toog te mm. xam nga yooyu noonu <laughs> dafay dafay am li sëñ Babacar wax sànq rek sëñ Babacar gis nga dafa ni nday ji ngay xool parce que tey boo duggee ci kër man li ma xam ci mag ñi ndax Touba laa dëkk doo takk doom ja ndey ja ngay takk. wallaay te ndey jooju ngay takk ay doomam bu ñu réussir ëllëg bu ñu nekkee Sénégal nga ne mm, da nga xam lu ñuy liggéey ñu nekk bitim réew nga ne ña ca dorog ba te ndey ja ci boppam moo liggéey li ay doomam añoo. wallaay ndeysaan. <laughs> moo liggéey li ay doomam añoo de passage may nuyu waa Touba waa Kër Ñang fa ma dëkk. waaw Kër ñan fa ma dëkk. kër xam du Mouhamadou Fadiama Niang gëm a dëkk ma nuyu leen de passage te xam ne ñun ñun ay bool bool cent pour cent lañ ñun bu ñu demee di takk dañ naan mbaa ndey ja nu mu toogee wala demal kër doomu diw ndox nga goro ba waaw demal ca doomu diw xam nga ko ci bar ndaxte ndeyam ko ko ci bar ba doom ji ñëwee ne ko bàyyi dama bëgg denc mhm. dana kaanu wuree kaanu yoote mhm. kocc dox euh, doom ji dox daan ne jabar kocc na tekk ba ci yàgg mu jël benn doom daal dox daal ne ko goro wuro wure wa jeex ñu mm-hmm. jóg ñibbi mm-hmm. waaw mm-hmm. jabar goro doom ju jigéen jàngaaniwul. nday jaay royukaayam. bu koy nampal da ci day tënd. xam ci la mu nampal ca ween ba moom lay def yaay mooy première école. dëgg mooy première école. non yàlla moo ko njëkk a def. <laughs> jigéen mooy lépp. Mm-hmm. jigéen mooy lépp su jigéen baaxee àddina baax. dëgg mm-hmm. waaw jigéen su baaxee àddina baax. Mm-hmm. kenn amu ci garab. waaw moo tax te euh, da dégg sax tubaab ne derrière un grand homme. se cache une grande dame. góor bari na valeur dañuy bay dañuy bañ loolu nee nañ bëgguñu nee nañ à côté de chaque grand homme <laughs> a une grande bañ loolu léegi waaw mooy li ma doon wax sànq ci yenn xalaat yi ñu gane mhm. lu bari. Mhm. xam nga jigéen ak góor xam nga nan la mel. Ah. un la ak zéro. Mhm. gis nga zéro gis nga bis bu nangoo topp ci ginnaaw un. maa la ko wax dix la ñuy doon ah. dix. waaye gis nga bis bu toog nekkee ci kanamam bis bu nekkee ci kanamam mm-hmm. rek àddina tukki duñ doon dix mm-hmm. waaye gi nga zéro mm-hmm. bu toppee ci ginnaaw un dix bu beneen zéro fekkee ko fa ñaata lay doon cent bu ko fa beneen fekkee lu muy doon mille mais yeneen zéro yi doom doom yi la njaboot bi non <laughs> yeneen soxna yeneen soxna yeneen soxna dégg ay yéen mbay Babacar doo xool ay sa yaa ngi woon ci point bu am solo mi wàllu ma mandu mandu te ci fi mu gën a amee solo gën fa amee doole mooy boroom xam-xam boroom xam-xam bu màndu ndeysaan boroom xam-xam bu màndu su boroom xam-xam yi ci àddina bi màndu woon àddina jag ndeysaan yenn saay sax nga gis ku am xam-xam ñàkk mbaanu tax ñu ñëw jënd sa xam-xam def loola mbaanu wax loola ci sa xam-xam loo xamante ni day tas pénc mbaa mu yàqum réew am na ba tey. Mm-hmm. moo tax maandu day. day dëddu dem lu am solo parce que ñoom ñi sax dañ koy xaar si ñoom ah ñoom bàjjen gox yi. Mm-hmm. Ah, sangatu néew. des ah. maanaam dafa am ay jikko dañ koy xaar ci nit. bu comme li may wax bàjjenu gémmiñ bu tuuti lay am ak nopp yu yaatu. Mm-hmm. parce que secret yow sa secret nga ñëw wax ko bàjjenu gox. bàjjenu gox bi génne ko ci mbedd mi. yow am nga droit yóbbu ko ci yoon. am ko waaw moo tax mag moo tax ñu ne bàjjenu gox toujours day am gémmiñ bu tuuti. am nopp yi yaatu. ndeysaan bàjjenu ku amul bàjjenu gox bu toogee ba amatul sutura kooku dootul bàjjenu gox. waaw parce que yaa ngi gis ku feebar. yaa ngi gis ko am problème biir néegu sëye mais boo ko exposé si mbedd mi kay teg ko ci penc mi nit ñi pencoo ko addina tukki moo tax mm-hmm. maandute lu am solo la ci réew waaw eh, dañ daan wax sax naan chauffeur. Mhm. day maandu. Mhm. naan docteur mhm. day maandu. gardien day maandu naan maandu baax na waaye am na ñoo xam ne ci leen ci leen gën a bëgg ci ñoom. ñu maandu. ak jànk ba biir waaw ndeysaan. min na ci bëri. nekk ñoo xam ne euh, maandu daa baax ci ñoom lool. waaw maandu moo tax sama papa Ndiaga Mbaye ko ca way wu rëy ba. maandu leen. maandu war na jàmm. su ñëpp maandu woon. yërmande yàlla baaw. Mhm. waaw maandu ndeysaan mi ngi noonu mi ngi tàmbali di deñ ma mhm. ñàkk man di ko wut bi ko ñeenteel moo di kersa. Mhm. ndeysaan kersa yàlla na ko yàlla yërëm. waaw mi ngi noonu di dem. waaw bokk na ci ñaar ñi nga xam ne ñoom lañ ko gënoon di séntu ci ñoom. muy jigéen. ak gone. ndeysaan. jigéen ak gone. Hmm. waaw bu njëkk jigéen da doon am kersa. Hmm. jigéen da doon bëri kersa. Hmm. daawoo jàkkaarloog jigéen rawatina mu nekk jegemaar mu xool la ci bët ak bët. sooy wax moom day sëgg ndax kersaam. amatul am bëreetul kersa. jigéen daf daan bëri kersa. rawatina su nekkee ci ati njegemaar. waaw daf daan nëbb ay cëram. su dënn mësaan a feeñ mu ne wuy sama ndey yàqu léegi ndeysaan bala nga am li nga li la gën a neex. ci jànq ci ci njëgamaar yi am léegi. <laughs> waaw dégg nga nu nu nu nu nu génne ko. ñu pàccal di dox ci mbedd mi aisément. <laughs> yeneen góor yéen a bëgg loolu nag bàyyi leen jigéen ñi nu ko euh, bëgg. ci bi buñ ko bëggee góor li mu gën a bëgg la gën a bañ. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ça c'est vrai. nañ jigéen ñi te ñoo yeewu. Mm-hmm. ndeysaan jot na nag ñi dañ leen ci daan yar nag. jigéen a bëgg. góor li mu gën a bëgg. la gën a bañ. ndeysaan ji saa yoo génne ci mbedd mi. góor mm-hmm. na la booy booy nga fi. Mm-hmm. yaa tas geeru Indochine ba. te fekke woo ko. Mm-hmm. billaay bu yeboo nga sumboo say rongañ. te dëpp ñibbi seen kër. maa la wax li ndax lan. bu la ko waxee rek. xamal ni li nga li nga li nga li nga def noonu ak ni nga mel dara baaxu ci. pourtant des fois nag. Euh, da ñëw ci ci ci ci. te bu ko bu ko bu ko. bu ko doomam melee. Mhm. wala jabaram bu ko wala waaw ko neex. dëgg la te gis nga li nga wax ni sëñ Babacar doguma la. Mhm. gis nga xale yi viole yi li mu bëri bari bëri. Mhm. xale jigéen yee koy provoqué. parce que ni ngay ñëwee paccal sa yaram génn sa yaram ñëw wéet góor wala nga nekk ci mbedd mu téye sa loxo lu la def yaa ko def sa bopp. li mu li sang bi wax dëgg la jigéen da ngay muur sa yaram. Ah. da ngay muur sa yaram. booy sama provocation yëpp nag xale yi la. te nag ci parent yi la. parce que buy génn war nga ko contrôler. xool li muy sol xool fa mu jëm. xool la muy la muy mais buñ ñëwee dem marché jënd seen ancho yi monté ko. <laughs> paccal nga génn nga teg ni moom la waaye tamit xale bu góor bi tamit bu ñu ko yaree. si mhm. kër ga xale bu jigéen nga xam xale bu góor bi laa wax. Mhm. bu fekkee ne yar nañ ko si kër gi. Mhm. ba mu xam ne ni ah kii kat sama rakk la du ko xoolee bët boobu noonu. waaye yow gisati nga xale góor yi def kenn rakk wala ñu def kenn mag xale góor yi ñoom donc dama bëgg a wax que ni cette responsabilité là est partagée. ni ñu yoree góor yi noonu la ñuy wax yéen jigéen aussi donc jigéen nag moo moom si moom la ñuy gën a xaare yéen nii. beneen beneen remarque bi may def mbay tamit mm, mooy. Mm, mm, euh, peut-être ñu ngi wax si muur cër mais des fois dañuy gis koo xamante ne day takk jabar ibaadu mu jël jabar ja xoolal muri ko. ah bon waaw muri ko. tegloo ko cheveux naturel. mais bu ñu may Babacar li muy wax gis nga ibaadu boobu nga xam day muur ñu baal ma ak eh, muur gi rek la de. ci kaw la rek la ca biir yàlla moo xam nañ ma jéggal nag la ca biir yàlla suñu borom moo koy xam waaye loolu amul ci solo li ci am solo mooy yàlla la ko sant def ko muurul nga jéem au moins jéem li am solo mooy yàlla la na defal nii melal nii mhm. loolu ci am solo mhm. yàlla dafa bëggoon ñun ñu noppalu. Mm-hmm. góor noppalu. Mm-hmm. jigéen noppalu dëgg la. loolu la suñu borom bëggoon. Mm-hmm. man ça m'intéresse trop ci kersa bi nga wax. waaw parce que tey jii comme niñ ko jàngee pour une vision nette il te faut une bonne accommodation de la rétine. voilà maanaam gis nga tey man. Euh, man fi ma xamee ne sax nit war ta xool nit bët ak bët. man tey boo ma xoolee bët ak bët booy wax di fen dama koy xam. dëgg tey comprendre machine moo gën a métti comprendre nit. moo tax. man ni may jàppee ne bu nit di fen dama koy xam mhm. noonu laay jàppee ne su may fen mhm. nit da koy xam parce que boo xamee dara dangay jàpp ne li nga xam am na ku ko xam mhm. moo tax ma ne gis nga kersa mooy barrière bi yëpp tey kersa bu amoon tey tey mun naa bañ a li li sama maam doon wax nit dañ koy rusee nit kii mun na ma bañ a neex sax ci jëmm Babacar Mbaye Babacar bi toog fii ma rusee ko jëmm jooju ba tax na ma négocier ak moom moo tax kersa c'est c'est juste même même même ñun machiniste dañ koy dañ koy wéyee quoi en fait. lu am solo la bët ak bët kenn du ko xool nit. lu am solo démasqué. mais en de communication. dañ da koy jàngal mais en communication nit ki booy booy waxtaan ak moom da da ngay wax. Mm-hmm. parce que parce que c'est c'est y a le langage euh, visuel également. waaw foog foog ngeen xool parce que dañ naan la boo ko mm-hmm. xool sax mm-hmm. ça am na lu muy prouver manque de confiance en soi. ay yeneen yeneen parce que tamit xëy na jamono moo toll foofu. mais taw kersa ba tey dafa war a des. kersa moom kersa moom. non mais xam nga lépp loo gis reflet la <laughs> ci biir ak ci biti. d'accord ah, xam nga <laughs> ak jikko du mhm. benn. non ak jikko. du benn. xam nga communication. waaw métier la. Mhm. Mhm. foofu sa métier ngay exercer. d'accord bokkul ak jikko. merci beaucoup Mbaye Babacar. <laughs> mais ba tey sax si métier bi dinañ xam ne kii ku am la des fois ne ko ci. toujours. dañuy confondre dañuy mm. jaawale yu bëree bare bare bëri te bokkuñu. d'accord d'accord waaw. Mm. mais daal jigéen ci lañ gënoon séntu ci moom kersa. Mm. Mm-hmm. ak gone. Mm-hmm. waaw ndax yàlla dafa mm-hmm. bëgg góor noppalu. jigéen noppalu. moom nu mu mooñee góor am nu mu mooñee jigéen. jigéen nekk lu sensible lu am valeur. lu am dayoo. loo xam ne ay cëram lépp trésor la trésor moom la jigéen trésor la te kenn du am trésor di ko exposé mm-hmm. koo xam ne li nga yor ni nga mel mm-hmm. ku la gis bëgg la mm-hmm. euh, nekkul ne da ngay exposé sa bopp boo exposé sa bopp ba ñi la bër bëgg di bëgg di bëgg di bëgg mën naa am ñu topp la di defi pexe mbaa nu wuti pexe ngir jot ci. Hmm. moo tax mu bëggoon góor noppalu jigéen noppalu mu ne góor jigéen sa yaram lépp trésor la hmm. ba mu des sax xar kanam ak say tenq kon trésor boobu hmm. waay waay waay waay waay rëkk waay nëbb ko muur ko ba fa nga ko war a génnee nga génne ko fa soo foofa jeexee nëbbaatal. ba foofa jotaat. ca kooka. parce que bu ko defee nga noppalu. man man man góor ma noppalu boo génnee ci mbedd mi cër bi yàlla ci yow ma jox la ko. ñaari soo gisee soo rombee ci mbedd mi gis jigéen ju sol tol gu jot. fat mm-hmm. yaa mën naa bañ a muur bopp bi sax mais day sol lu yiw. moo tax ma wax ko jot tol gu jot gu fat gu yaa mel na ma mel jiw ànd ak mami Ngom mu sol baa mu sol baa baa boo xam ne nataal na ay cëram boole ko euh, bii feeñal sa jumbax bi. takk. boobu xam ne day sa dënd day génn sa dënd day génn waaw loolu tamit ñu lijjanti ko après leen non ñu lijjanti ko après li may wax li may wax c'est une dama leen di xool waaw may ma may ma këfkatu kii la moom li may wax xam naa ko de këfkat bi bàyyi ko li may wax xam naa ko de c'est vrai maa maa koy xool bu baax di apprécier déglul déglul li may wax dafa wér non du ma wax lu dul dëgg. Mhm. dama lay xool bu baax ndax lii ma la xoolee bu baax. ah waa déglu ma mais lislaam da la déglu ma aw aw yombe la ngaa tag gémmiñu sàmm da ngay xam lu mu walis waaw ay ca kon da ngaa tag gémmiñu sàmm da ngay xam lu mu waaw xool xoolaat baaxul lii muy def nii sama diggante ak sama borom <laughs> neexuma gënaluma dëgg la te bu ma sañoon mu baaxoo te bu ma sañoon waaw te bu ma sañoon duma ko gis. <laughs> dëgg la te bu ma ma ko gis. dëgg la waaye bëgg naa su ma ko koy tere. Mm. wala su ma ko koy wax. Mm. ma ne ko lii nga def. Mm-hmm. ndax bëgguma wax lu ma leerul. Mm-hmm. wala lu ma xamul. d'accord loolu mu def noonu ma xool ko. te mm-hmm. xam ne lii baaxul gënul. xam gi ma ko xam moo tax ma mën koo toog di ko ko wax. d'accord ne ko ne ko bàyyi baaxul. xam lu muy def ba noppi. waaw moo tax daal jigéen dafay am kersa. ak gone. moo tax kersa. des fois ñu bëri dañ dul xam rek mbay. parce que tàmbali na. di deñ dama doon dama doon dégg. ñu ah, tàmbali na deñ naan mbay ak ña kersa wutu ko. maanaam mbay ñu naan ah. jigéen bu dee danga bëgg am doom ju baax. waroo di génnee sa sa dënn ci ci biti parce que bu dee da nga bëgg a nàmpal nit bu baax. Ah. nekkul loo xam te ñëpp. dañuy seen bët si nga koy amee. sa weer nit ñi dañ ko mhm. dul xam mais bu ci weñ tongee mhm. wàllu yu du ci nàmp. dëgg la ñuy wax. bu ci weñ tongee ku ko xam diñ ci góor wàllu yu du ci nàmp. Mhm. kon nag li ñuy wax nii. ndeysaan bëgg mu baax mu te rafet rek la mm-hmm. waaw bëgg mu baax te rafet la ndax kër ga ma dëkk mm-hmm. am na fa mm-hmm. gox ba ma dëkk am na fa penc mi ma dëkk am na fi te ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ñun ñëpp a ko xamandoo <laughs> safi waaw ah, ah, moom day sànni xeer waaye baax na waaw xool xoolaat bi la bañ xool bi bay ñu ko mais xool xoolaat bi li ñuy def waaw ñu ñu teg suñu baaraam ci kersa mais damay bañ ñu yàq sama dem mais du mbay kese mooy xool ñiy xool dañoo bari sax ci ci yi waa tim leen di ba fàttali ci damay gis bu baax non man duma gis ay ci tàggoor mbay boo xoolul boo xoolul da ngay gëmm te soo gëmmee mën ngaa fakkastalu mbaa oto mbëkk la waaw. Ah. yow de yow laa tali bu jaar ci marché. Mm-hmm. mbedd bu jaaree ci marché. Mm-hmm. faw nga xool ngir nga xam fi ngay jaar. Mm-hmm. lépp nga fàq. waaw boo xoolul rek àddina tukki. àddina tukki ñu teg suñu baaraam ci ñeenteelu poñ bi muy kersa. jóge na fi. wala wàññeeku na. ak ñàkk kersa. tàmbali di ko wutu. Euh, ñuy nuyu xarit yeeg soppe yëpp. di nuyu monsieur le maire de la ville de Khombole monsieur Maguette Boye. Mm-hmm. di ñaan yàlla defal ko jàmm. di nuyu sama yaay Dieynaba Fall. ñaan yàlla guddal fanam te mu ànd ak wér. Mamadou Ndiol Fall. Mm-hmm. Pape Dramé ak soxnaam Ndeye Mani. Euh, Cheikh Bara Ndiaye borom def gis. Mm-hmm. ak soxnaam Kati. ak xar yi ak soppe yëpp yaay Pate Mbengue ak yaay yëpp ñoo ngi leen di nuyu. di ñaan yàlla sunu borom mi dara tawul yàlla na def jàmm ci réew mi. ak ci àddina bi yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu waale Adja Béti mu baax mi <laughs> sell mi ñu <laughs> ko nuyu bu baa